ma kenn ñoom Aïda Ndiaye ñun ñëpp des ñan présidente bi nga xam ne moo nekk côté Mbule maa ngi lay nuyu. Ndeye Fatou Ndiaye bi nekk côté Kër maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu Fatou Dieng maa ngi leen di sant yéen itam waa Ndiaye maa ngi leen di nuyu dama ni tey damaa bëgg mu leer du ma wax réalisation monsieur le maire li ma bëgg damaa bëgg yéen waa Tamba ngeen déglu ma. tey monsieur le maire daa ñëw Tamba am lu ma bëgg leer tey bii ñuy jaar mu xongo lool gàmmu gu jot yére bu weex boo mu nekk yére bu xongu ndax raaraar yi ko ñuulal ñu ni sëñ Abdou ko ñuulal ki ko ñuulal moo ngi nii toog tungulu du teew ñuy nataal defoon nañ délégation dem seeti sëñ Abdou Aziz Al Amin ni ko bëgg nañu tëli Tamba bi nga jàppale ñu def ko ay at ay at di ko def mais yàlla ba muy sottal ci jëmm ci tedd ji la ko sottalee ñu ñëw dal ci mbay ñu andi ko conseil municipal voté ko fa ñu ni tali bii ñu ko fi def ndax dafa war a bokk ci tali Pambal bi ñu war a jël tali bi yóbbu ko ginnaaw kër xaal yi ñun ñu xeebu ñu yi ñun ñii teewal gox bi summeeku taxaw biir conseil municipal ni du si dal tali bi day ñuul day ñuul muy guddi day ñuul muy bëccëg monsieur le maire accordé ñu ko tey jii moo tax tali bu ñuul ku taxaw ni monsieur mu maire deful tali bu ñuul soxora la jàpp kon def na Tamba tali bu ñuul mu leer ñaareel bi si des lampateer yi bi ñu tey jii yaakaar naa ne bu courant coupé ñëpp fii leen si ñëw xale yaa ngi fi football guddeeg bëccëg ku ko fi andi su ngeen ñee deful dara kooku dafa soxor. beneen bi si des kan mooy taxaw fii ndax discours yi bu ngeen ko déggee ba tey du ngeen ñu ndox dégg ngeen ko ñu nga am problème ndox. ndax taxawaay sa conseil municipal ba lu génn ñu ni Tamba lu génn ñu ni Kër Masamba lu génn ñu ni Kër Malane lu génn ñu ni Kër Maguette Mekele. parce que loolu mooy suñu taxawaay tey ji yaakaar naa ne tey fi ñu taxaw di wax kenn du fi wax amuñu branchement social grâce à monsieur le maire Mamadou Diagne ci ndaw kenn kenn moo mën a taxaw tàmba tey ni amuloo courant wax leen kenn moo amul bu doy bay jël may ay ñoo xamante ne sax dëkkagul grâce à monsieur le maire kooku yi yaakaar naa ni dugg na fi baax a baax a baax kon tey damay yem ci loolu si Tamba wax la ni daal liggéey nga Tamba rawatina nag Tiwaawan kii dañu liggéeyul banque leen seen loxo ma leen ba fukk bi ñuy ñëw fekkul mais dara mu ñëw ñu taal ko seeni doom am tumuraanke këyit ñu war a def examen amuñu këyit monsieur le lu mu def reconstitution des actes de naissance permettre leen seeni doom ñu am examen benn kanam mairie bële defar ko ba tey ku fa taxaw xam ni yaakaar naa ne am mairie am na fi muy ñett dama ni tey jii ku dem ci de sëñ Mansour defaral na taalibe yi dispensaire boo xam ni ku feebar da ngay faju te doo fay dara beneen bi ci des fa mairie njëkk ba nekkoon mu def ko centre socio éducatif ni théâtre kat yi woykat yi jàngalekat yi képp ku amati programme ñëwal fii nga tànn fi muy juróom dëkk yi nga xam ne dañoo la jokk Tiwaawan mu tànn si fukki dëkk ak benn ni leen pour nga dem fa da nga daan fay ñeenti téeméer juróomi téeméer ndax kenn daaw fa nu nga dem mu tàllal tali bi ni la ku dëkk Tiwaawan ku dëkk si quartier Ratassa yi laa yemale tàllal tali yi Parba am na Toora am na Kër Matar xaali am na Sinub xaali am na Kër Masamba am na xaaj nañ ko te léegi mu taxaw ak tant d'autres boo xamante ne def na ay ndindeeg fépp def na ko kooku extension ndox bi demal kër Bakar nga laaj leen demal kër Baba Alima nga laaj leen fu ne tawal na fa ndox fu ne tawal na fa courant ñu ne kooku liggéeyu ku liggéeyu xam nga noo koy xamee ñu ne maire bi sàcc la suufu dëkk bi sàcc na ko sa dëkk bi sàcc na ko est-ce que ngeen dalee dégg ba tey dégg ngeen ñu ne budget Tivaouane maire ba sàcc na ko wala luubal na ko dama ni su ngeen nattee seen avec ba pare ndax da ngeen di jël ab terrain di ko di wax dignité ak koo xamante ni lu mu def su poosam la di ko ko dénk waaw xanaa nag bu ngeen amee un million wala deux millions di ko dénkaane nga dégg koo xam ne yor na juróom-ñaari ak ab xaalis mosoo dégg ñu ne luubal na ca mosoo dégg ñu ne laal na ko wala def na sa nangam kooku bu la joxaatee xaalis war nga koo mën a dénk waaw la dénk ay nit nag du ñu jugee sa àll ba ñëw suñu dek bii fekk nag xam nga tey boo yore sa jànq defal ko ba mu rafet. ba mu taaru ku ne daw ni dama koy tàllal loxo ñoo lànk kii lañ koy jox ñoo bañ kii lañ koy jox dama ni dama na ay gars yu fi ñëw di digaatee ay 2 millions dinañ leen may 3 millions dinañ wutal financement woo xam nga lan ni jigéen ñi dañoo bëgg xaalis nan nambatal ci ñoom ay digaate ngeen di yaakaar gis nga ba ñu mën a gis xaalis boobu xam nga lan la chantage la mooy dañuy bàyyi ba élection yi ñëw kon commencé campagne bi ñu ñëw ñu nii pour lan achat de conscience ñu travailler seen mémoire pour que ngeen votel leen lànk leen lan ngeen di nekkee bu nga calculé woon juróom-ñaari at ëpp na lan leen di dig lan leen di di ko sañsee di ko diwoo di ko tekkee ay oor ëpp na loolu suñu dignité kenn duñu ko diggee ay diggee sàmm diggee ñoo fi nekk suñu suuf si nag moo leen tax a jug te suñu suuf nag joxuñu ko kenn juróom-ñaari at déggu leen benn yoon ñu ne monsieur le la benn mètre carré sàcc ko waaw ku sàccul sa mètre carré jëloo luumaloo sa dara kooku tey jii bu fekkee ne ñu bëgg nañ Tiwaawan bëgg nañ dëkk bi suñ ko waxteeloo muy riirandoo joxee fee monsieur le maire liggéeyul monsieur le dëkk bi ki defar dëkk bi mooy jàmbar jii ki liggéey dëkk bi mooy jàmbaar ji gis nga am rii la fi nekk te képp ku dem si bañ ngaa tega nga jël sa carte voté loo Benno Bokk Yaakaar war na Tiwaawan képp ku voté lu Benno Bokk maa ko wax fii daw ma ci dara ku wooteelul Benno Bokk Yaakaar nga jël sa carte di ko voté nga xam ne suñu suuf si doo leen tax a jug seen intérêt personnel moo leen tax a jug dama ne war na Tiwaawan war na tey doom ndax monsieur le maire mii am na projet 3000 emplois boo xam ne tey yaakaar nañu xeex pour Tamba am seen wàll xeex pour yeneen dëkk am seen wàll kon tey jii bu fekkee ni danoo jël carte boobu jox ko keneen yaakaar boobu dina yàqu te bëgguñu yaakaar boobu yàqu dama ni maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen tàllal loxo man duma ànd ak tappet duma ànd ak ragal duma ànd ak ku dem duma ànd ak ku dama ni dama ni bëgg ngeen financement yi dooleeku jàppale leen seen doom Souleymane le mu jàppale Mamadou Diagne ci mu jëm leen Tivaouane bëgg ngeen formation yi dooleeku kon jàppale leen ko dama ni waxuma sax li Mamadou Diagne ci ngi def mais man seen doom yaakaar naa ni juróom-ñaari at ngeen ma fal conseil municipal ma représenté gox bi dama ni ku man na taxaw ni ma def. ci juróom-ñaari at yi wutal naa ci fukki xale ak benn ñuy liggéey ku ko weddi fii di ko ci juróom-ñaari at yi financé naa fi quatre yoo xamante ne tey ñii am nañ téeméeri junni ñii am am nañ un million cinq cent am nañ deux cent cinquante mille ci juróom-ñaari at yi financé naa si fukki groupement juróom-ñaar fii ci Tundu ci juróom-ñaari at yi formé naa si yoo xam ne lii la ñu su ngeen bëggee loolu dooleeku ñu rooti andi da ngeen di branché ñoo xam ne duñu duñu bu ñu la seen show bàyyi ba nga dina tëj di fa dégg te ñu bàyyi ba nga dina bi xel ñu dégg te xam naa ne am na ñoo xam ne ku leen wooteel di ngeen fekk ne dina bu tëj ngeen fay xel te di ngeen fay